ci biir Afrique gii lañu ko jëlee waaye dañoo am ñaari produit maanaam ñaari garab yu baax lool ci wérgu yaramuk doomu aadama bi ci njëkk nag moo di sangomar sangomar nag lépp luy ndoxum siti wala hémorroïde da koy dindi ci nit ki ba mu jeex tàkk raxas ko ci yow waaye du yem ci loole ndax am na vingt et un maladie maanaam ñaar fukk ak benn ci ay jàngoro yoo xam ne nit ñaa ngi koy sooxaale booy jël garab bii di sangomar nag mën nga caa mucc waaye sangomar it day yokku kattan waaye yokku kattan googee waa bio Afrique dañu caa am produit bu doy waar ñu koy wax ndaa tell ndaa tell boobu nag sunu mbokk góor ñi la soxal ñi nga xam ne dañoo néew kattan rawatina ndax ndaa tell boobu ku koy jëfandikoo sa doole dina yokk ba noppi te di nga yëg tamit ne sa dayo awra mi ngi yokk te doo gaaw a yëg sa bopp waaye moom ndaa tell nag produits yi nga xam ne moom la ñu ko deferee yépp naturel la maanaam amul benn produit chimique fii ci Afrique la ñu ko deferee rawatina ñambi bi nga xam ne réew mi xam nañu ko loolee mooy base bi ñambi képp nag mu bawoo ci réew mi waaye yeneen produit yépp ci dénduk Afrique yi la ñu ko jëlee waaye waa bio Afrique nag seen liggéey boobu dañ ca ànd ak mag moo xam ne ay atam romb na juróom benn fukki at bio Afrique nag ku bëgg a jokkoo ak ñoom numéro yaa ngi nii mooy 78 612 vingt deux vingt deux beneen bi di soixante dix huit deux cent soixante treize trente trois trente trois kon ku jokkoog bio Afrique di nga ci am lu kawe sa njortu. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Boulaye Dia moom nag weeru mai bii ñu génn moom la ñu tànn ca Série A ba mu doon gone gi fa gën a xarañ li ko waral moo di kat moom ma ngay def ay jaloore ca club ba mu nekk di Salernitana rawatina fin de saison bii moo tax moom la ñu tànn ci kanamu Victor Osimhen Lautaro Martinez Romelu Lukaku ak yeneen attaquant yi nekk foofee ne moom moo gën a xarañ ci weeru mai bi ñu génn muy Boulaye Dia moom jamono ji nag dafa am sur saison wam jeex na te ñaari mat yi Sénégal war a amal du ca mën a bokk kon nañu ko ñaanal sur boobee gaaw bàyyi ko bu ñu dooraatee saison bi rek mu wéyal ci jaloore joojee ndax footballub Sénégal am na lool yaakaar ci moom ñu jugee ci Boulaye Dia ak ci jaloorem jël doomu Uruguay bi di Manuel Ugarte nekk ca Sporting bu Portugal gone gi nag club yi ko bëgg bari nañu lool rawatina ñaari club yi muy Chelsea ak Paris waaye gone gi ci boppam nag ëllëgëm da koo bëgg a téye ci ay loxoom bu ñu sukkandikoo ci record bu Portugal gone gi nag jamono jii mooy yor cëggul guyam mooy xool ban club moo gën ci ëllëgëm mu dem fa bu dee waa Paris moom nee nañu ko soo ñëwee ci sunub club noppi nañu ngir fay la at mu nekk cinq millions d'euros bu dee waa Chelsea moom nee nañu ko soo ñëwee sunub club noppi nañu ngir at mu nekk ñu jox la deux millions d'euros par an maanaam at mu jeex ñu jox ko ñaari millions loolee la ko waa Chelsea xamal waa Paris moom juróomi millions la ñu ko dig waaye ëllëgëm nag moom da koo bëgg a téyel boppam bu ñu sukkandikoo ci record bu Portugal. ñu jugee ci manuwel Ugarte ak ci bëgg-bëggam jël doomu Croatie bi di Mateo Kovacic moom nag li mu bëgg moo di jóge ca Chelsea club bu ñu naan Manchester City nag da koo bëgg démb rek ñëw nañu ci ak yéen Fabrizio Romano nee na doomu Croatie bi ak waa Manchester City juboo nañu ci lépp li muy fayeeku ak ñaata at la fay xaatim juboo na ak waa Manchester City fi mu desee kay moo di ci diggante ñaari club yi kon su dara soppeekuwul soo moytuwul saison bii di ñëw Kovacic ci Manchester City bu Pep Guardiola lay football bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano. ñu jugee ci Matteo Kovacic ak waa mën Manchester City dem ca waa mën Manchester United ñoom nag li ñu bëgg moo di teqalikoo ak seen defenseur bii di Henry Maguire li ñu bëgg nag moo di yombalal ko mbir mi dagg contrat ba noppi jox ko as tuut cib xaalis. lu toll ci onze millions d'euros la ñu ko bëgg a jox ba noppi dagg contrat bi leen lëkkale ndax moom doxalut ca club boobee la muy toog ci banque bi moo ëpp amalut leen njëriñ li ñu bëgg nag moo di dagg contrat bi téqalikoo ak moom xibaar boobu Daily Mail moo ko xamle ñu jugee ci waa Manchester United ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Espagne bi di Marco Asensio moom nag xam ngeen leen ndogal li mu jëlagum moo di jóge ci Real de Madrid club yi ko bëgg nag bari nañu lool rawatina Aston Villa waaye jamono ji nag Paris dafa ñëw xëpp ci mbir mi suuf gone gi Paris la gën a jege te daanaka juboo nañu ci lépp bu ñu sukkandikoo ci aas ndax contrat biñ ko tegal neex na ko. te salaire bi Paris noppi ngir fay ko tamit salaire bu baax la moom nag su fekkee dina dem ca Paris contrat wu ñeent jàpp juróomi at la fay xaatim bu ñu sukkandikoo ci aas yéenekaay ñu jugee ci Marco Asensio waaye Paris duñu ko génn gum dañuy jël Lionel Messi la poule ga moom nag officiel na saison bi ñu nekk bu jeexee day jugee ca Paris ki ko dëggal moo di Christophe Galtier mi tàggat Paris tey jii bi mu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di waajal match bi mu am suba Clermont la ñuy jàkkaar lool mu soxal Ligue 1 bu France ci la xamle ne Lionel Messi day jugee ca Paris bu saison bi jeexee nee na neexul nag ngay tàggat club jour bu mel ni liwenel Messi di fa jugee ndax ponkal dëgg la moom nag ba mu demee ca Paris ñaari at la moon ak beneen at boo xam ne en option la su ko neexee mu yokk ko ca wëyal waaye ñaari at yi jeex na beneen at bi nag Lionel Messi du ko yokku daf fay jugee loolee ki ko dëggal moo di Christophe Galtier ñu jugee ci Lionel Messi la poule ak waa Paris dem ca waa Marseille ñoom nag Igor Tudor tàggatatut leen li ko waral moo di dafa démissionné loole officiel na kon jamono jii Marseille amuñu coach loole nag ki ko dëggal moo di Pablo Longoria mi nga xam ne mooy président wu club boobee nee na bëgg-bëggu ci door moo doon mu jugee ci club bi moo taxit nangul nañu ko ko moom nag benn saison képp la fa def saison bi nag des na benn journée waaye moom tekki na ay ndombo la mu fa jongante ci ay match nag en tant que coach mi ngi toll ci quarante sept match victoire am na ca vingt sept victoire match nul am na ca sept défaite am na ca treize waaye tamit ca Ligue 1 boobee moo jël troisième am 73 points Ligue des tamit xam ngeen ne Marseille demoon na fa poule ba mu bokkoon nag quatrième la jël waaye nag ànd bi fii la yem teqalikoo na ak waa Marseille muy Igor Tudor fan lay dem nag kenn xamagu ko waaye dinañ leen ko toppal incha allah ñu jugee ci Igor door ak waa Marseille jël doomu Espagne bii di Hector Bellerin moom nag saison bii ñu nekk ca Sporting bu Portugal la doon football Barcelone nag moo ko able woon foofee waaye doomu Espagne bi li mu bëgg moo di jugee ca Portugal delluwaat Espagne ca Barcelone waaye su demee ca Barcelone nag li ko gënal moo di waa Barcelone jaay ko Betis Séville mu dellu fu mu miin moom Hector Bellerin li mu bëgg daal moo di